tey dama leen di laaj fan yee waa Mbacké dañoo bëggoon a def lii mooy def seen devoir citoyen yi ne def li nga xam ne loi moo leen ko may Antoine Ndione ak ay gaayam politiciens yu nëbbu yi doon taxaw ne Mbacké du ñu def seen devoir biñ bëgg a def muy taxaw fu manifesté wu keroog a leen di laaj ñaata effectif la fi Antoine andi woon ak camion yi ngeen takk bañ daw tey biñ ñu bàyyee respecté ñu suñu bëgg-bëgg ñaata policier ñoo ñu encadré pour ñu def suñu marché ñetti policier rek ñoo encadré waa wax naan Sonko moo taal. Mbacké nañ xam ne Antoine mi ñu bëggoon a lii moo taaloon Mbacké waaw Antoine ak préfet Amady Diop Amady Sénégal lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee a def ñu def ko politicien ministre buy na ko jëlee lañ ci yamale respecté nañ li loi bi wax waaye loi xam ne ni fii may wax ak yéen Dakar ay affrontement yu bari am nañu donte dëkk yëpp ci Sénégal ñi ñuy def marche bii ñuy def ñu respecté li ñu yoon wax ñi ngi ko doon def ñaan préfet yu may ñu ñuy def marche waaye ku ne xam na ne Ousmane Sonko liñ koy teg caméra caméra bu dul tey bu dul tey nag di suba waaye bés dina ñëw li ngeen di teg Ousmane Sonko dana taal réew mi parce que nag du Ousmane Sonko de mais Sénégal ci boppam ni bindoo moo nanguwul nga jàpp benn nit di ko jaay doole di asar newu ci kawam ñi koy saaka sax dana leen di jël def leen ay ministre xam ngeen ne xam ngeen ne Mame la dëkk ñam xam ngay ñam boo fii nga dëkk waaw am beneen ministre boo xam ne duma ko tudd di ko may promotion moom tamit saaga Sonko rek moo tax ñu fal ko ministre dinaa leen may benn affaire ci ñun waaw jotagul nag parce que moom dañoo war a débat mais xam nga fu mu mi ngi naan Ousmane Sonko warul war a dem salle de massage maa ngi leen wax ne kooku baayam ak Adji Sarr ñoo bokkoon lu ñuy liggéeyee. yooyu massage dafa ko weddi ministre ci ministre yi Macky Sall yi koo xam ne xaalisu massage lañ doon gën dee. kon nag loolu laa doon wax gis ngeen Ousmane Sonko bi ma gisee Macky Sall wax ne. waa Touba moom xam naa ne neexuma leen ci laa ko wax ne ko yow bientôt dootoo neex kenn Sénégal waaye bi ma gisee waa Mbàkke ak waa Touba bëgg Ousmane Sonko daa ko ne bientôt léegi Sénégal gépp bëgg la loolu yàlla moo ñu ko may ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa ñu ngi ñaanal sëriñ am di Mbenda Fall Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu kilifa yi diine yëpp waaye di leen wax ne Touba ku ñu bëgg Sénégal gépp bëgg la ku ngeen ñu bëgg Ousmane Sonko Touba ku ñu bañ bëgguñ la léegi Sénégal gépp bañ la te Macky Sall neexu leen xam na danaa bëgg baat bii may wax aw way la nag waaye ngaan nga la ndax yàlla dafa wax wa jaala kalimatul lazina kafaroo sufla wa kalimatullahi hiya hulia kon nag Macky Sall wàccal ci suuf wàccal ci suuf Ousmane Sonko